lu nekk rek ñëpp duñ mun a bokka def benn euh, mbir foog ñi téye fële ñële téye ñeneen téye fële comme que ñun ñu ngi fii ñoom fi ñu nekk xam naa ne lu baax lañ nekk di def foofu noonu because ñoom suñ téyewut foofu noonu rek fii nii du mun a ko rek soo li ma leen a wax ne rek mooy mun nañoo seetaan tele mun nañoo déglu radio bi ñu xam déglu comme que nekkuñ fi li ñoo wax fii nii ñoom tam ñu déglu ko ñu xool seetaan ko si tele bi xam mun see am njëriñ. burger al Binta Sidibe fecc sopp sa yaay bu yow jóg dooleel jigéen réew mi la tax a jóg Banjul beko nga buur teeral you. Tanja Shisu, Tulma Funyada Kano, Ramatulai Shiwo. mbokk yi ñoo seetaan ñu ngi leen a sargalati ci programme bi euh, fi mu nekk nii nag duñ def dara biñ noppale ak musique dinañ euh, continuer waxtaan bi indil leen waxtaan bi moo jaalo defoon ak jaal yaasin food processing center euh, ay jigéen yu fa nekka booloo pour liggéey jëm kanami réew mi ñu ko béyee saami waaw soo ñun ñoom dañ ko pro process dañ ko di dos raxas ko ba mu set steam ko dry ko pati ko bii 500 la nii fi nekk half kilo waaw mun naa suur three people is dried one bii moom naan buuru la naan buuru la maalo la maalo buñ dry dañ ko process ni même steam ko ba pare dry ko after nag ñu soog koo package waaye always suñ dryee ba fan bi génnee moisture bi ci solo xam nga benn dof du fa dugg ay yooyu waaw suñu yi mooy baaw baa powder bi ah, dañ ko lëkkale paw def ko powder Pawra lañ ko def so li gis ne son fact bi yaa ngi yëpp fa da gis ne fii méthode baa nga fa ak expiring date bi ak wéet bi ak ko liggéeyee waaw bii ruy la karaw karaw pour ruy soo bëggee ruy moom fi mu nekk dafa pare dafa dry na koo daaji rek nga xal koo squeeze laat nii ak ndox pare nga su sas yar bi baxee rek nga sooti soo ko toogee nii ba mu yor mm-hmm. saaf na seven people mm-hmm. parce que five hundred grams la waaw bi bu dry la nekkul bu bi tam dañ ko pre-cook la dañ ko dry ba mu wow def si nga gis ni cere baa ngi am na instruction pack bi ba pare am na fii nii cooking instruction et pare ni ko simi ak méthode bi yëpp mu fi ak expert indeed bi wéet bi lii cere la ñu am ciagre lii ciagre la so amé sa ko rek comme li Touré Kunda bi wax rek dang ko kassar ba touré rek nga suusal ko nga am ciagre bu fraîche yëpp dañ ko weer fii ni dara bi mom ko mënu toga sa bu ni ko dee si rek moom bi ñu ne jub la dégg ak buy yoɗa nga ɗa nga jil rek nga soti si nga yëngalaat rek nga def sa sugar sukur ak essence pour tes nga mun a boole càgg bi def ko nga la grano la gerte bu am sukur ak meew bi baaw baaw lifin la naka wonjo pawda teaspoon rek nga jël rek nga def sa ndox rek ak sa sugar ak sa flavour pour tes waaw bi nitatu bu kala ko ñu def ko pawda mbaxal bi mbaxal la mm-hmm. macha allah. bii lan what is the mixture. mixture bi am na gerte. Mm-hmm. am na litu am koobu laka am tambaja am kaani ba pare ñu tippin ko nag préserve ko yow da nga baxal sa maalo rek nga daaji nga def ko bii mun naa use seven cups si maalo. wala nga baxal maalo bi nga xam ne muusal nga maalo bi rek nga dajji ko sotti ko si muusal ko. waaw ah, bari na ingrédient bari na ingrédient bi moom su si turee ku naay jaaree bi nga xam ne nii <laughs> bii nii ñun ñëpp leen di liggéey produit yëpp la bi tamit noppal jeex.